Codou Lo nuyu naa maa ngi lay fay. combat kon ni ma ko waxee si reporter bi rek. tant que yëkkati woo sa loxo du la song est ce que yaa ngi doon sóoraale ah, ñëpp wax nañ ma ko. Eh, maa ngi koy sóoraale aussi a baax a baax. wax dëgg. mu yëkkati sa loxo nga daw jàpp mu déclenché mbot. non man maa yëkkati sama loxo mu daw jàpp mu jàpp la. waaw ah. yëgg la fu sëri. ah man dëgg ko naax tab ko muy déclenché mbot moom mbaar ko. Eh, di sant yàlla bu baax. Eh, di sant sama supporter yëpp di sant waa Barthé di sant sama papa. di sant grand Ibou Seck ak Abdou Faye ñoo joor Eh, ak sëñ Aziz Tilala jërëjëf sëñ Aziz Fall Tilala di ko sant bu baax di ko gërëm sëñ Aziz Tilala maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm eh, ñun amaana ay ndaw yi xeebu nañ mais heure bu ñu ko woowee dañuy wuyu heure bu ñu demee këram dañuy dalal yaatal ñu wallaahi eh, ak saa Touba dafa déplacé woo Touba ba fii ma dem mu ñaanal ma ba pare jege waat xaalis jox ma waaw di ko sant bu baax ko gërëm ak Abdou Ndiaye jantal Mara ak sama yaay Sofia waaw ah, sama yaay Sofia maa ngi koy bëggee bu a ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ak sutura ci barke bi tënkoon suñu bëri ba mënoon mbapati ku la xam-xamee la ligue simple wallaahi mënu moon mbapati man gën naa mbapati yàgg na ba combat a baax a nga jógee si bébé garga fan nga jëm ah mais sama morom lañ la moom seen liggéey laa jógee ndigal na ma may ndigal ndigal men waaw est-ce que teelul na ma may uh-huh. moom gën na bëre man maa ngi bëri daan kay na ma may chance yu waaw à part ndigal kan nga gis na sa morom war ngaa mën a sama morom rek nañ ma jox si jàmbaar yi rek booy yi nga xam ne buñu bëree day neex am na si benn booy boo xamante ni as yàgg na koo lam-laam moom si diggante ak caatu kay bu dali foofu waaw la 4 combats la am 4 victoire ngeen tolloo même palmarès. waaw ñu ñaar ñëpp la. te seen combat doon nañu ko coow ay mbapat sama kanam ma koy fekkee. muy yàqu ba sonn amul amul. Ah, la moom ay morom lañ man mënu ko bañ moom aussi mënu bañ eh, mais bu ñu waree bu ñu boolee ñu war a bëre eh, dinañ bëre quoi mooy loolu. encadré défaut yi ci moom da nga koy toog même bu dee daan sax da ko koy wax mu koy rectifier boo xoolee am na comme am na tolof tolofam boo xam ni parax parax parax naa yàkkam bi moo taxoon mu am ci tolof tolof mais euh, au fur et à mesure ñuy liggéey di rectifier yooyu boo gisee tey ni mu bëree ndànk ndànk lu bëri te ba jàpp adversaire bi daan ko loolu mooy làmb mm-hmm. waaw fan la jëm ah ay moromam ma ngi fi bari ama moom li mu ko li mu bëree bëriwul quatre combats rek la bëre ñun mooy quatrième combat am trois victoires am benn tolof tolof ay moroom bari nañ ñu ngi waaw jërëjëf père